mennum Serigne Cheikh Mbacke Bara Dolly sur les dix membres du buro moom rek moo taxaw daal góor jigéen du fi am te góor ji fi du fi mas am kon nag loolu war na mën a tax rek yéen waa Touba ngeen jàppale ko. gëm leen dina gën a baax ak góor gi na neex li ñu naqari dañ la gisutoon bi yàlla andee féexal nga réew mi xéwal la ñu nii naataange ngi nii góor gi njëriñu meeñ la boo xamoon Sénégal fi mu jaar ba yegg si fii tey war nga gëm ne ñu góor gi dañuy ji ngoy kon moo tax ba ci dem boo jaay assemblée ne góor jigéen du mës a am ci Sénégal Serigne Mountakha daal di koy feelu ne góor jigéen du mës a am ci Sénégal kon nag nañ ko jàppale bu baax. Abdoulaye Wade taalibe Sëñ Tuubaa la Abdoulaye Wade kan la fi teg ah déedéet assemblée nationale. ah murid sadiq bi ah dëddu sëñ Bamba gi mooy kan Serigne Cheikh Bara Doli Mbacké Serigne Cheikh Bara Doli Mbacké xam ngeen ne assemblée lu defar Touba rek lay wër lu defar Touba. góor gi dolli ñu manul wax ju yàqu la mu ngi def a bàyyi nañu cee jot góor nañu cee góor gi doon yi ñëw dañ ko daan di nga naan góor gi nitu ay la mu ñëw di fay ay ak a njëggalaat Darfour Guinée Bissau Madagascar Côte d'Ivoire. ñëw sama fees man boog bi ñoom saa yu sant Ndiaye Tamba tey loo wax ak waa Kédé yow mi nga tey doon na seen Cheikh wóolu dëgg la ay bureau na man Tamba rek laa wóolu si ful ak fayda. yàlla na fi yàgg ci wér yàgg ci gannaaw ci mbëggee dafa yàgg waat dafa maa yàgg a neex waaw wate bu ma mës a wate moom laa ko wate waaw yàlla na yàlla defal xéewal li mu bëgg yàlla na ko suñu Bàmba defal ci Ablaye Wade très bien jërëjëf merci doomi Cheikh Ahmed Lamine Bara Dolly mi ngi nii waaw waaw di sëñ Cheikh Mbacke Bara Dolly député Assemblée nationale waa nañ ko jàppale wateel ko mu gagné. yàlla ñoo ngi lay ñaan. Serigne Cheikh jël ndam li. ba Casamance. adduna bi yëpp jóg. di seede laay. su ngeen ko joxee conseil départemental mooy. li ñu ndekk mooy santé. yaakaar naa nit balaa mën a def daaw day wér. soo wéree nga mën a am li nga bëgg. la ca toll ko mooy xale yi nga dañuy jàng fii ba kenn ndaw. dem ba Mbàkke di am problème mu transport boo xëyee suba da nga leen leen yërëm lool. ndax dañuy sonn lool ci oto yi oto yi doyut. su boobaa dañ leen mën a jàppale ci ay maanaam transport bu baax a baax a baax la ci ko mooy ndaw ñi dañ leen mën a wutal ay xëy su baax a baax a baax li ci dolli ko itam mooy jigéen ñi dañ leen mën a wutal ay projet yoo nga daañu mën a yëngu ci dara la ci dolli ko mooy daañu wutal maanaam carte de santé boo xam ne mu feebar mën caa faju la ca dolli ko wut moom dañ leen ndox lu manqué daañu indi ndox ngeen a ndox mu doy courant bi doy bu baax a baax a baax su ko defee wér a dolliku ku feebar mën a faju incha allah loolu mooy programme Serigne Cheikh Bara Doli Mbacké firndeel ko bët yéex nañu cee jot bët yéex nañu cee jot góor gi dali ñu yite dafa métti te nitu tey yàkkamti nen doo ko jëriñoo mukk te tojuloo ko choc ca yaa ngi nii boo jaar ci réew mi teg ci sa bët weer di gis bokku ca góor yéex nañu cee jot bët yéex nañu cee jot góor gi dolli ñu yar ca ba ngay daw xale boo ko di ko aat jëriñ a ngi nii te si day fexe la bu ñu màggee ëllëg raw seen maas góor gi yéex nañu cee jot góor gi ñu def ko ci éducation nationale lu kenn deful plan REVA bi liggéeykat réew mi naw nañ ko plan jaxaay mbaa ngi gaayaa ngi nii tey jii sanc nañu ey bu dem bu doon tey góor yéex nañu ca jot yéex nañu ca jot góor gi dali ñu Sénégal moo raw ci réew yi Afrique 2006 fi ñu jëlee fi ñu jëmee ko gën góor gi dali ñu fi mu jëlee fi mu jëmee ko gën góor gi dolli ñu ci góor la kër Cheikh Bara Dolly woote leen kër Cheikh Bara Dolly ah Abdoulaye Wade ñu Touba Karim Wade dawe na Abdoulaye Wade dawe na kër Cheikh dawe na wii kër Cheikh wii Abdoulaye Wade ma leen neex suba xëy daf may xëy yàlla bu fa say-say bi bon bi jaar ba xorom ko yàqal ñu ko loolu duñu ko nangu loolu duñu ko nangu loolu duñu ko nangu duñu ko nangu góor gi dañu ci may góor gi dañu ci may góor gi dañu ci may góor gi dañu ci may góor gi yéex nañu ceetat doole góor gi ba bari doole góor gi moo doole góor gi moo doole góor gi moo doole góor gi moo bari doole doole góor gi moo doole yéex nañ ci jaxanaat di la ñaanal gudd fan ak wér Euh, ànd koog moom ndax dafa def lu rëy te ku def lu rëy am lu rëy sëñ Cheikh Mbacke Bara Dolly nekkatul koo xamante ni dañ koy laajte partout dans le monde xam nañ ko ndax jëf ju rëy ji xamante ni na ko barki dee moo njaay yàgg naa jëf nag waaye lii mu jëf barki dee moo njaay dafa firndeel tey li xamante ni bëgg na ko ci Sénégal bëgg na ko ci département bu Mbacke bëgg na ko fii ci diwaanu Touba taxawee nekk fukki nit nekk ca bureau ba ñu ne ñun kat danoo bëgg góor jigéen ñu daganal buñ leen fi gisee ñu baat leen du bëree bare bëri te assemblée ba danoo bañ muy juróom-ñeenti nit ñoo xamante ne danoo ànd ak Macky Sall mel na moom kot moom dong moo sécurité yoonu murit sëtu Serigne Bamba bi dafa amati na ndam la Serigne Bamba defoon ca ba ca moo ko ca assemblée nationale ne góor jigéen lépp lu def ci moom dagan naa capitaine nag da koo neex rek mu di ko wax daa tënku ci diine tënku ci lislaam tënku ci doomu daara ja xamante ni moom la doon biiw sëñ Cheikh Mbacke Bara Dolly